asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata fukki fan ak juróom-ñeent ci dul qiyada muy weeru digg tabaski di fukkeelu weer ak benn ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki ñaar fukk ak ñeent fukki fan ak juróom-ñeent bokkul ci lim bi fàtte lim bu rafet la kon tey ci talaata ji rafet na li ñu ciy teeti rek wattandi ko moom talaata mooy ku ca watu wala ku ca daloo walla ku ca ñaw ñaanu bis bi yow sama boroom yàlla na nga ma may njaboot bu baax yàlla na nga nangu sama ñaan rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibatan innaka samiu duaa rabbi habli min ladunka durriyatan innaka samiu duaa xadiisu bis bi yonent bi sallallahu nee ñeent yi képp ku mu nekk ci moom lépp loola raw ci àddina amul solo sàmm kóolute dëggu ci ay wax jikko ju rafet ak fegu ci ñam yi maanaam fexe bay lundeelu lew xadis bi ahmad génne na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arbaun ida kunna fiika fala alayka ma faataka min addunya xifsu amaanatin wa sidqu xadiisin wa xusnu xuluqin wa cifatun fi tucmatin axrajahu ahmad